léegi damay ñëw ci actualité ba léegi parce que gis nañ 31 décembre bi dara xewul fecc yu ñu baal yu ñu demuñu fenn mais gis nañ tele yi xëccoo bi ci ñoom la njëkkee parce que kii di 2S andi na Wally Seck TFM andi Youssou Ndour Sen TV andi Sidi Diop mais ñu gis ni xëccoo la woon ah euh, RTS sax andi na Omar Pène ah kàggu na Omar Pène RTS <laughs> na Omar ñu gis ne xëccoo la mais ci rew gàddu gi ñoo gis ne gars yëpp nee nañ Sidi Diop moo moo moo kii kon kii di Waly Seck moo jël ndam li ci kaw euh, euh, Papa Youssou Ndour ak ci kaw Boy Sidi Diop noo gisee loolu. léegi pour ma jox la benn affaire nga xool ko bu baax rek ñoom ñoo ngi lay wan ni instant bi ñu ngi dundool musique mu lay wan ni kon lamb instant yi mu ngi tardé carrément xool baax li ma la wax. tey fi mu toll nii ba affaire yi commencé tag rek am na scandale bu xew boo xamante ne nañ Sidi Diop na waali indi coowu musique premièrement gars yëpp sukkandiku ci lool di xool carrément nan la musique jugee ca kaw ci lañ nekk nii ñoom instant yi fi mu toll nii ñoom dañuy dox ci xelu gars yi ay jàmbaar lañ fi mu toll nii moo lay wane carrément ñoom seen liggéey instant bi retewul ñu ngi avancé ñun làmb ñoo tardé carrément nag du caaxaan ndax instant yi toll nii waroon na a am ay affiches yoo xamante koy laalante seen biir voilà boo xoolee instant bi yow ci dimension musique moom tamit waa ndax bu fekkee da nekk ndaw da ngay viser ki nga xamante ni moom la gars yi di coow nga ne ko yow laa jéem a xool ay tànkam yu teg tegu foofu waaw waale jàmbaar la voilà wax dëgg yàlla boo bëggee dégg-dëgg ku ci ne mu ngi def chaque jour ay yoo xamante ni mu ngi jàppale gars kon dañ koy ñaanal moom fi mu toll ni loolu gën a yokk ndax fekkee ne gisuñu ko tam teew ñu ngi gis ni carrément mu ngi def loo xamante ni chaque jour mu ngi jàppale booy ay ñoom alaaj ay ñoom kii nu dee sax euh, booy bi gaañoon temps ci ginnaaw te dëkk Pikine fii ñu koy ñaal yàlla si abibulaay ñu koy ñaal yàlla suñu borom yërëngu taxar ko àjjana gis ne acte yi mu ci def waaw waaye tamit kuy def lu baax yaay dégg ay clash loolu mënul ñàkk waa léegi nii doon doon doon gënante mbagg papam Youssou Ndour loolu ay détail la loolu détail dama ciy ñëw sax su fàttali ko kii di père Bekaay mos na wax nee na ko waali bul tegg sa tànk ndax euh, booy roy da ngay roy lu baax toppandoo Youssou Ndour dara nekku ci ndax Youssou Ndour ku ko toppandoo wala nga nga nga diggante mu mbagg dañ lay encourage ndax royu loolu bon Sidy Diop nit ñi di wax man dama koy wax ne ko fi nga teg si tànk foofu la ndax euh, xool lu baax fekkul koo xamante ni deful dara ci ci musique mu koy toppandoo wala mu koy di mbagg euh, di toppandoo ki nga xamante ni mooy Wally Seck dara nekk Sidy Diop di courage te fi nga teg si tànk foofu la Wally tam di ko wax ndaanaan la jàmbaar la xale la boo xamante ni am na ambition ci li muy def gëm na ko te bëgg na ko ñu koy encouragé li mu li mu mbëbët mu nekk ci kanamam yàlla na sotteeg jàmm ak salaam. man damay jàpp ni ñoom ñoo force sax ma loolu laay jàpp c'est bu fekkee da ngaa nekk ci milieu bi da xam ni carrément ñoom li ñuy def ni exemple dañuy def ngir seen tur aygu ci kaw loolu mooy problème bi. kii li muy def nii da ko war a def waale li muy def da ko war a def ndax boo bëggee dégg rek waale moo ngi def di giranteeg mbagg Youssou mooy papaam dug du du gire mbagg sax day xool tànk yi muy teg mu tegu foofu noonu kon Sidi war na mën a def loolu. man dama leen encouragé bu baax a baax xam ni carrément ñoom fi ñu ko teg foofu la moo lay wane musique jugaat te kaw ñoom foofu lañ ko teg fi pour l'instant ñun nag làmb ñoo moo moo dee ndax dee bu muy dee pour muy leer ñoom ba affaire yi commencé rek ñoom indi seen coow boo xamante ni ku ci nekk ñoom la basé wu te Sidi fi toll ni moom tànk teg nii fi toll ni bëggul kenn yàqal ko ko tamit loolu mooy problème bi ñu leen di encouragé bu baax ñoom ñëpp fi toll ni ñu ñaan yàlla affaire saawaan baan bu baax baax quoi ñoom ñëpp waaw loolu la ñu ñaan incha leen taxaw ñu ñëpp incha allah